def ay armée ah en tout mais tamit xam nga armée moom fii fii lañ ko fekk armée mais tamit mu ngi loolu bu ñu ko tàmmee di def nii. jëwriñ dinañ dem ba xàmmee ni kon baadoolo bi du du dëkk fii. Mhm. wala du fi dëkk parce que 100000 francs tamit. parce ah que lu ñuy wax affaire bi 100000 francs la. waaw ba pare li ci gën a garaaw jëwriñ. mooy ay libanais. 100000 ñuy jaayee waaw. waaw ah li ci gën a garaaw ay libanais ñoo fa am na ay libanais ñoo fa dem jënd. ah bon oui xam nga tey mën nañ concevoir sax. Mhm. nga gis kilifa gu nekk ci kër génn àdduna ne man kat su ma su ma sañoon sama jabar wala sama soxna dend ak man. Mhm. sama jabar dend ak man su boobaa bu ñu la dencee euh, su euh, d' accord mën na mën nga jënd yenn partie quoi pour ce qui. Mhm. mais maanaam fi gars yi demoon noonu. Mhm. kenn nekku fa. dañ ko clôturer noonu pour famille diw. maanaam ëllëg bu ñu gaañoo. maanaam gars yi daal ñu ngi xëccoo suuf bay xëccoo suuf néew. Ah, man dama dama jàpp ne est ce que kii bi moo tax. brise de mer brise de mer bi <laughs> xam nga wala brise da leen di fay fekk parce que man man man man de yàlla yéex. Mhm. man de fu ma mënti gaañoo nañ ma fa denc. Ah. Mhm. parce que yaakaar naa ni yàlla moom jëf rek lay fay. Mhm. mais waaw jëf lay fay ak fu la mënti denc. Ah, sa jëf moo la fay fekk même malaaka bi moo la fay fekk. kon nañu rafetaatal mbir yi. xam affaire le maire dafa def. waree fam maanaam tey moom moom il a vu. une vidéo waa ji am ku fa dem di kaas moom sax moom sax kii la woo OFNAC la woo ak le premier ministre ak ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diaz jot ci vidéo bi dem en tant que maire donc ñi ñu war a interpeller kon mooy maire Yoff wax ko ñi ñi fa nekkoon foofu di def loolu. fan la fan lañ ko teg ak xaalis bi fan la doon dugg. parce que tamit nag koy dem bay di nanguwaat li mu jëndoon nag koy delloo xaalisam. ba pare mu am suivi. Mhm. ana caméra de surveillance yi. foofu def nañ fa ay lampe ba mu leer naañu mais dafa waroon ànd ak ay caméra de surveillance ba ku fa def ñombe. ñu gis ko tey dafa weesu gis doomu aadama bu ñëw di def ay gàllaajam ñu sulli néew. Ah. def ko fa demaat dégg nañ fi l'histoire de Eumeu Sène mu wax ko fi. Mm-hmm. nee na bàmmeelu yaayam la gars yi sulli def fa ay affaire mm-hmm. kon yooyu c'est grave moo tax bàmmeel tey euh, suñu cimetière yi il faut mu amaat surveillance ah bu bu bu am solo parce que nag way dawlu yi bu ñu leen fonkul moom yaakaar naa ni réew muy ndërmeelu lay. par rapport li ñu doon wax léegi affaire du Cheikh Tidiane Dieye. Mm-hmm. dinañ def déclaration demain. ah voilà par rapport ak moo tax ma ne mbir mi am na lu ñu ci wax. merci beaucoup voilà ah demain incha allah en tout cas merci pour l'info kaawu Barthélémy Dias sama naa ci interpellé waale mhm. jëwriñ sax mhm. waaw photo moo Bougane bi lu tax mu def kii nii. Ah gaa di ci wax quoi. li bëri moo seete woon Bougane wala Bougane moo seete woon Barthe. non affaire bi kii la demee. xam nga moo fa demoon ay procédure habilitation moom xam nga Bougane fee la dëkk cité kër góor gi la dëkk je pense. oui Barthe dafa demoon pour defar tali bi. waaw maanaam dem saytu liggéey beeg yooyu. yéegaale ci këram nuyu ko. ba léegi photo boobu la gars yi di jàllale ban problème moo ci am man. waaw ah, Bart dawul coow de. waaw léegi non ban problème moo am ci photo Bougane ak Bart. Ah. Ah. ñu toog waxtaan ban problème moo ci am jëriñ. non problème am ci liberté d'interprétation rek. waaw non yi di ci wax mel ni dafa warul kii quoi. pourtant Ousmane Sonko gisante na ak Mimi Touré de. ñu toog waxtaan amul amul moo tax. man na mën nañoo wute. Cheikh lu am solo laa wax foofu <laughs> pourtant Ousmane Sonko toog naa ak Mimi waxtaan de. bokkul te ñu juboo léegi. bokkul euh, le président euh, le premier ministre Ousmane Sonko taxaw na jiboo ak président. Euh, directeur ONAS xaaral ma léegi rek jubóo directeur bi nga ah. xamante ni rapport da koo épinglé. kan si directeur ONAS kii Lassana Lassana Gagny Sakho. Ah. te instant joxaat nañ ko poste de responsabilité. rapport da ko épinglé waaw jamonoy Macky Sall waaw hmm. waaw. ci affaire ONAS. Hmm. kon nag man gisuma problème bu am Barthélémy li ak Ousmane. am xam nga Bart xam nga Bart jamono <laughs> jamono yëpp daa noppi. waaw gars yi naan noppeem bi jaaxal na ñëpp. waaw man maa ngi jàpp ni day xaar occasion pour. relancer pour se renaître. Hmm. en politique tu mais pourtant ay occasion am na de pour mu génn wax. mais waxul xaaral rek mais bu bëggee bu bëggee renaissance am boobu ñëwaatam am doole. Hmm. na sori waay. na mais. Bougane li mu wax leer na daf ko rendre visite en tant que en tant que moom kiiwam la meeram la. Mm-hmm. mooy mooy meeru Bougane. Mm-hmm. Bougane en tant que euh, homme politique moom tamit mun na dem ba ci goxam. toog nuyu ko amul yaa yaa rien de mal mais mais loolu problème amu ci. voilà problème président Macky Sall. voilà Barthélemy Dias demul seeti ko. waaw te ñëpp xamoon nañu problème tàmbalee nag. nit nit nit moo indi woon coow ba. <laughs> léegi parce que ñoom ñaar gisante nañu tey. bis <laughs> mën na ñëw ñoom ñaar tamit ñu tàqali ko. parce que politique la ñu nekk. Ah parce que ñoom nit ñi jàppee politique la. politique mooy ku jàpp sa morom rek. Barth ak Bamba Fall amuñu photo. Hmm? Barth ak Bamba Fall. ah jegante nañ de. en tout cas daal doy na waar. xam naa ne moom ci leen moo gën a jege. ku la ku la ku la dama bëgg Medina si dëgër góor gi la def. en tout cas si dëgër góor gi Medina moo gën a jege. moo gën a jege maire Dakar de. Ah. Ah. ñu ngi ñu ngi xaar daal coalition entre coalition Barth Bougane. waaw gars yi loolu la ñuy wax fan yi mais ñoom. mais loolu c'est possible. non cette visite Mhm. ce n'est pas euh, du politique. du politique encore une fois na déparé foofu ñu. voilà donc ah, man dégg dama dégg benn nit daal mu wax ne ma photo bu amee. Mhm. day am kenn ku muy jariñ. Mhm. am naa la benn politicien wax. loolu jariñ Bougane lay jariñ. moom élément de taille la. ku ko am politique. parce que ñëpp xam na ni politique moom. am na am na lu mu ci xam. ku ko am ci wetam ci politique wala mu lay xalaatal dina am. benn politicien daal nee na ma politicien du def te yàlla tax. Ah bu ko ci yàlla fekkee nag mu jël. seen seen du def te yàlla tax. bàtt bu njëkk. baax na baax na bàtt na. mën na waa <laughs> parce que dégg naa ci yu bëri ay gëm sa bopp naan ah. en politique il faut jamais dire jamais. daal nañu seet si Medina ñun Medina ah. soxla dañ ko waaw waaw day ñëw. Ah, ah, seet si Medina. voilà jeex na parce que seen maire la tamit. ah. et il a l'obligation de te suñ tali yi gis nga nu mu mel. ah demoon na rue 22 nag fa tàmbali woon. oui yow yow yaa ngi fan. ban rue maa ngi rue 27 ah bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet yi. waaw mais sant ak gërëm rek di bëgg bu wér a wér <laughs> di remercier Cheikh Tidiane moom. Hmm? Mm-hmm. Eh, di la encore euh, murid yi jàmm. Ah sëñ sëñ sëñ Muntaxa yàlla yokk leer gi wér gi mhm. ba li mu naanal maamam yëpp mun ko def chauffeur yi xam it euh, respecter cop peu mhm. de la bi mhm. daw nànk dal nànk yóbbu jaam yi ci jàmm indiwaat leen ci jàmm xam nga sëñ sëñ bi barkeel xéwal moom day ñëw quoi eh, incha allah xéwal waaw amoon mbégte ci jotaay waxtaan bi Euh, li fi génn yëpp jàng nañ ci lu bare bëri mhm. waaye ñu xam ne rek jamono bu nekk bu ñu waxee rek nañu xam yan circonstance la ñu waxee ah. mhm. ñun ñëpp ñu fi toog ñëpp defar rek moo tax ñooñu mhm. ñuy wax waaw nañuy jàpp ne ñu ni defar dañoo bëgg réew mi jag rek moo tax ñuy joxe suñu xalaat di la jaajëfal également di jaajëfal borom kër gi di leen sant bu baax ci invitation bi d'accord élément Barth waaw macha allah euh, Barth dina euh, waa waa PS dinañ ko jox lengee ah man daal li ma waxoon rek mm. c'est numéro 2 moom mm. doy na quoi. d'accord Barthélémy Dias su mu toll nii. Hmm. il doit être un leader. ah normal waaw numéro 2 ah. yi ah, moom nooy def xalifa. gani nooy def xalifa ah, non. non PS moom actuellement bàtt war a taxaw waaye bu dee da nga bëgg a. mais wax nag ça ça ne concerne que moi. seen yónni wu ma. je je dis dama ne man sama xaar. Barthélémy Diaz doit créer hmm. son propre mouvement. Hmm. wala mu dem euh, créer parti boppam. doy na li mu def ci politique. il a quarante huit ans je pense. ah doy na nag. def nga. presque vingt cinq ans ci ci ci xeex bi. en tout cas ah. ngi ñëw rek. am na ñu bëri tey ñu fi def dara. Mm-hmm. te pourtant ñu ngi seen ay mouvement. di rallier kat def lu nekk <laughs> donc tey. il est temps mu nekk nag leader parce que man je ne pouvais pas concevoir. Mm-hmm. Barthélémy Dias dem yeewi askan bi. Mm-hmm. gis Ahmed Aïdara nekk leader am. Ah. c' était man mënu ma woon concevoir loolu dem mooy mën a buso nekk sa leader mënu ma ko woon concevoir ak li Barth def ci politique. jamono jooju man dama avant yeewi askan bi di am. laa ko njëkk wax ni taxaw bii da koy génn. dem créer sa mouvement bopp wax dëgg booy rallier nga rallier si taxaw sax d' accord mais nga créer sa mouvement bopp nekk un leader. te il est temps am na ñoo xamante ni baat lu mu def ak lu mu wax lu mu ñeme ñoom ñeme ko. Ah kon tey mënoo di wéeru rek nekk numéro 2. Mm-hmm. il est temps que mu génn nag. <laughs> voilà yaay samp sa mbër. <laughs> <laughs> donc maa ngi tàggoo ñëpp boo tànnee neex na man c' est un de partager avec Diorine. Mm-hmm. da nga ciy jëlee rek Diorine